alhamdulillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu cosaanu feetu bi TV kon mbokki ci gàttal bu baax wax leen ma ma wax tuuti ci olof sama làmmiñ ci olof satut te may baal ma rek ndax euh, relation Baye ak Mauritanie lu gudd la te lu rëy te lu yaatu la léegi liñ wax na naar yi dañ doon traversé géej bi di ñëw di bàyyi meew ak yàpp di ñëw di lekk ceera mbuum ci kuusi di bay ba seen tànk dinaa ci deret loolu kenn amu ku fii lu dul Baay Ñas naar boo gisee rek mu ñëw fii ci Sénégal ci yeneen kër diine yi ci seen événement yu def dafay ñëw serin la mais naar boo gisee chérif boo gisee bu ñëw fii Madina taaliba la taaliba la taaliba la دينغ لولو أموكو و لودول بای نەس ئەنداخە یەنەتوبی الله عليه وسلم دقل جدنا جدونەتی مەکە دەنگچنە مدينة مدینە سيرم لولو لنجانجة ميلان موي حقيقة المحمدية من الأحدية خمونكو أفان باي الأحمدية من المحمدية خمونكو أفان باي الخلافة والإبراهيمية من الأحمدية المحمدية خمونكو بلا باي باي موي خمال لولو moo tax ñu topp ko moo tax ñu sumbul ko suñu mbaxana ñu sumbul ko ñëpp nag ay taalibam di dox ci gannaawam loolu amu ko fii ci Sénégal yëpp ak ci Afrique yëpp du dul Baay Ñas loolee ngis ñu wane ne shurafa ñëw na mi ngi taaliba diw taaliba diw du seen taaliba ay sëriñ leen fee mais ay taaliba leen fii démbu Sénégal Mauritanie moo nekkoon ay sëriñ yu Sénégal mais tey Baay ëlbati na affaire bi Baay léegi mooy sëriñ Mauritanie te léegi ñun ñuul léegi rek moo ñu saf te ñuul dafa musa yàlla la bëtuti ñuul kaaba ñuul bopp ku nekk ci karaw bi ñuul bët lu gis ci ñuul tali bu la yóbbu léegi ñuul kon yow yàlla dafa am lu mu def foofu mbootam foofu allahu alamu xaytu yajalu risalata yàlla moo def loolu ci baay def ko ci kuusi def ko ci tayba ñun ñëw fii di buxante ak yéen ci loolu ngeen xam ne ne ñun amul ludul Sénégal ludul bay ludul medina bugg nañ ko bugg bo xamne su tasaaree ci adina bi yeb daneen xajti mais ñu gëna liggé ci lolu ci relation bobu entre mauritan ak Sénégal ñu xamna na bay musna ko wax na ne du ñaari peuple ben peuple rek la Cheikh Tidiane mi ngi ma wax na ne doy na kon ma taxaw bala mu okuma wa assalamu alaykum wa rahmatullah